asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi nuyu mbokk fi teew yëpp di ci jiital kilifa yu tedd yi nga xam ne ñoo nekk sunu kanam di yëkkati sunu kàddu yi ci ndigalul Serigne Sidi Mbacke moom Serigne Abdoul Khadir di kàddu yoo xam ne kàddu yi jotale la jëmee ko ci jëmm ji nga xam ne moom la fi fekk si tey. yendu ak moom muy sëriñ Xamsatu muy sëriñ Abdul Ahad sëriñ si di wax ne nañ ko yëkkatil kàddu santal ko sëriñ Xamsa waaye seereel mbooloo mi nag loo xam ne dafa dox seen diggante ñoom ñaar sëriñ Sidi dafa wax ne mi ngi sant bu baax sëriñ Xamsa ci jataay bi maanaam kenn yi ni mu tëddee. di ko jokk ca ñu ko jiitu woon waaye di séeréloo mbooloo mi ne moomkat yàlla da leen a boole ak bokk waaye boole waat leen kóllëre kóllëre gi yàgg lool te léppit rafet nee na mu doon ci moom kenn koo xam ne lépp lu mu nekk bu gestoo gis ko lu mu amit boole ko ci nee na loolu nag ak bokk mënu koo gën a rafet ndax bokk bokk gi ñi gi jàpp ne moo gën a rafet ci bokk te di ko fàttali jamono bu nekk mooy ñu yonent bi daan boole diggante mu muhaajiruna yeeg saar yi te dimbalante rek lañ daan def nee nag moom lu lu sëñ sëñ siri lu mu nekk si am sa fekk ko ci bu geestoo gis ko nee na lu suñu am sa am it boole na ko ci ba moo waral jataay bii am tey yend gi mu yendu fii nee na dara warul lu dul fedd li kóllëre googu dox digganteem ak moom ginnaaw bi leen yàlla boole ak bokk ba noppi waaye fedd na it kóllëre gi doxoon diggante sëriñ Abdul Xaadir ak sëriñ Abdul Ahad ndax nee na daawul am lu mat ñeenti weer te sëriñ Abdul Xaadir ñëwul fii gane si sëriñ Abdul Ahad bokk fee moom nekk lu gàtt gàtt ba mu am juróomi fan mu doog a delluwaat loolu na kon day mel ne ay ngan la yoo xam ne daana ko gane sëriñ Abdul Ahad waaye daana daana jege ndax xam nañ ni Daaru Salaam bukki barke daana ko fa gane ndax sëñ Ibrahima Bousso moom sëñ Massamba Kanni dafa maa mas a nettali ngan goo xam ne da caa àndoon moom nee na nee na booba moo doon gane ji ci boori Saalum bi mu dikkee ba tolleeg ba tolloog Daaru Salaam ñu ne ko sëñ mu jàdd jëw ñëw nuyu ko mu ne ko damaa bëggoon nga toog ba ëllëg nee na sëñ Abdul Xaadir ne ko sama kàddu damaa raw ci barab waaye boo ma mayee ndigal bu weesu ajjuma jàppal gis bu la soob ma ñëw gane si la ba sa set nee na mu jàppal ko gis bi mu doxee ay yitteem ba wàññeeku ba muy dem di gane ji sëriñ Abdul Ahad ca Daaru Salaam dafa dem sëñ Fallu tàggu nee na bi mu ko tàggoo mu boole ko góor gu ñuy wax si Mbay Ngom ngir mu sàtt sëñ Ibra nee na ngan nga ca laa bokkoon seen Abdou Xaadir ko mu ànd ak moom nii sëñ sii di def woo ay bokkam yu bare bari ngir rek jëmmal bis bi ak wan fonkeel bu mu fonkeel ci li mu seq sëriñ Hamza sëñ yëkkati ñeenti junni ne dama laa bëgg a yónni ci boo demee ne ko lii kat du addiya du may du bor du sarax waaye dama ko bëgg a jox ngir bu ëllëgee mu seeral ma ñu taalibe bi sëñ Tuubaa nee na sëñ mbay bi mu dikkee wax ko sëñ Abdul Xaadir dana ko loolu moom mag a koy waxal boppam maa nga koy waxal boppam daal di jug nee na bi mu jugee sëñ Mbaye Ngom daw ñëwaat ci sëñ Abdou Lahad ne ko sëñ bi kat nee na loolu maa nga koy waxal boppam te mi ngi ñëw nee na sëñ Abdou Lahad daal di jug ñu bi nee na bi mu dikkee mu baamuwaat loolu ne ko lii ma la jox kat li ma ci jublu mooy bu ëllëgee nga seer ma ni taalibe sëñ Tuubaa la sëñ Ibra nee na moom mi ngi taxaw nee na sëñ Abdou Khadre ne tekk ab diir ba yàgg mu ne maa koy seer loolu nag ay ay ay jàngat yu bëree baree bëri da caa mën a juddoo ay jàngat yu bëree bëri ndax doon taalib Sëriñ Tuubaa moom ñun ci niñ xam ak liñ jàng ci li Sëriñ Tuubaa wax ne ku ni mel ab taalibeem nga amul lu ñuy sikki sàkk ci ne Sëriñ Abdul Ahad moom murid saadix la taalib Sëriñ Tuubaa kon buy sàkk lu mel noonu daa jubloo jàngale daa jubloo jàngale waaye am na yit lu muy wane nag ci Sëriñ Abdul Xaadir mi nga xam ne ci moom la koy sàkku kon bu fekkee fii lu yées ñeenti weer mu am fi juróomi fan di ko fekki Daaru Salaam bukki barga kon am na kóllëre gu doxoon seen diggante ginnaaw bi ñu bokkee Sëriñ Tuubaa ba noppi te loolu yoonu murid yëpp xam nañ ku ne xam na fa Sëriñ Abdul Ahad tegoon Sëriñ Abdul Ahad ku ne xam na it fa Sëriñ Abdul Xaadir tegoon Sëriñ Abdul Ahad kon bu fekkente ne jataay bi bokk na ci li ko sabab feddali kóllëre googee ni nit ñi xamee seen kóllëre ñoom ñaar ñoom ñaar noonu lañ xamee kóllëre gi dox diggante Serigne Sidi mi ak Serigne Hamsatou ba ca jumaay sëriñ Amsatu jee nga xam ne ma nga ca pénc mële sëriñ Sidi mi bokk na ci ña fay jiite aju te ku ne xam na ne fi mu dëkk ak foofa soree waaye kóllëre bu mu jàpp ci moom ngir jëmm yàlla ak sëriñ Touba ak jëmmam ji loolu bokk na ci lu ko sabab sëñ Sidi nag dafa wax ne mi ngi leen di seereel ne kon ñoom ñaar du ñaar benn lañu mooy sëñ Amsa sëñ Amsa mooy moom lépp lu sëñ Amsa nekk dana ca nekk ànd koog moom lépp lu mu nekk bu gestoo seen sëñ Amsa lu ci kenn yorit ka ca des bu waaxoo sàkk ca lu mu desoon nee na ginnaaw bu leen seere lelool nag ci digganteem ak moom ba noppi mi ngi sant bokk yi nga xam ne lépp lu mu nekk bu leen woo ñu wusu nee na mi ngi sant bokk yëpp képp koo xam ne rek yàlla boole na ak moom kóllëre dox seen diggant ak bokk dox seen diggante cërub taalibe akub sëriñ dox seen diggante ba lépp lu mu nekk saa bu geesoo gis la ci lu mu jàmp-jàmp bu la woo nga wuy nee na yéen ñëpp mi ngi leen di maase di leen sant jant nag mën sant lim ma yóbbante woon gën naa gën naa yaatu lii gën na ko rafet gën naa yaatu lii gën naa rafet lii waaye nee na mi ngi leen di sant bu baax a baax di jotli ak cantit eh, seen mbokkum bopp nga xam ne moo moo taaral jataay bi di sëriñ Habibou Mbacke moom sëriñ Fallil xelay fat neewoon na ma nañ ko jot ak cant moom it lool cant gu toll nag yi mu sant sëriñ euh, Hamsat kon sëriñ Habibu sëriñ bi mi ngi lay jotale ak cant ci yitte yi ak jamono jeg ni mu xate bàyyi lépp ñëw ànd moom bis bi taaral ko ànd ñoom jokk bokk bi xam na ni lii la lu lislaam rafetlu la ndax jamono xat na te jub yombul waaye lu mel nii nag moom rek moo mën a dajale mbooloo mu toll nii rawatina di ay bokk la sëriñ bi nee kon mi ngi sant sëriñ Hamsatu di sant sëriñ Habibu waaye mi ngi sant bokk yépp nag jant goo xam ne mi ngi koy seereloo yàlla day ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu fay leen ci ngeen jiw loolu daal la sëriñ bi woon nañ ko jot xam naa ñu ngi jéggi lu ci dëng rek ci ñun la matoon na sëkk nag jërë ngeen jëf sëriñ Cheikh naa ne àggale ngan ngeen dañ ci tënkoon tuuti rek lu ci bëgg waxi sëriñ bi mag bi nag lay fàttali ku fàtte woon na déglu rek ma nettali sëriñ bi daa wax nag ni am naa yaakaar ci jila doom te bor du tas yaakaar Cheikh Abdoulaye la wax ci feeñu jamonoom am naa ci moom yaakaar di sëñ bi nag di juum Cheikh Abdou Khadir mu ne daa feeñ di ramm seen ànd baa tax réew mi daa am jàmm seen ànd boobee nag ñu def ko ànd bi mosuñu ko wàcc ba wujji góor bi Cheikh Abdou Lahat at mu daan daana gane ji Cheikh Abdou Khadir booba nun ñëppay sant 60 yëpp ku fi bàkkum baax nag ump la ma wax la gi li ko njëkk neexal bañ ne jalañ lu nekk lañ nu taajal kafe ki attaaya xeeti si yu ma xamul dañu yi daal di ji këndëng yenn sewul am na fi xeeti yàpp xar yuñ wàjjoon ngir def ko ndékki waaye sëñ bi dane woon añ yi ñu waajal la ca gën ñu xaar ko ngir toppatoo nañ ko bu wér defar ko añ yaay yow da ci gis ay ceebi naar yoo xam ne gàccaal nañu ay soosi ganaar xar yu ñu afra am na am na suluxu am nay baxal yooyu boo ci yoree sa loxo ba lumpu ko day neex du jar sax sàqami àjjana neexidoo ci lii laa ko gëmee sëriñ Abibu Mbàkke moom suñ fàllu ku baax la ngir mbokk mi ñëpp ñoo ko wóolu la ma tëwoon ticc deman man la ma defal ba noppi nag moom di ma waar di ma dëfal Cheikh Abdou Lahat Cheikh Abdou Khadir ngan gee xam naa ne daana neex de waaye ngan gii Touba Belal ba nag di benn fan ci weeru novembre moo xool at mi kon seen bàyyi daa ganante ngeen ganante rafet na lool kulëri get dekkeeti sëñ am sa sëñ siidi dinañ wér gudd fan ak képp nit ko dana teew ci gile ngan rakk ji jóg sol daal dem seeti magam teg bokk rekk tax te daa baax am xorom yónneen ba bég na Seexu ba bég na seen bàyyi bég na ku weddi lii fen na yàlla na sax téeméeri at nu ànd ko boole ci wér jàmm salaam nu dundi ko asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu sëriñ Cheikh Abdou Khadir mu ne asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu nee na sunu kilifa yi nga xam ne ñoo teewe jataay bii seeni mbokk. ñun seeni mbokk. nee na ñoom ñii di seeni mbokk. di doom. di seeni doom. di seeni di seeni taalibe. ñoo leen di nuyu ci kàddu na ñoo ngi leen di nuyu ci kàddu Serigne Sidi moom Serigne Abdou Khadir. manees naa wax sax ne ñu ngi leen di nuyu ci turu Serigne Abdou Khadir. nee na mën naa wax sax ne ñu ngi leen di nuyu ci turu Serigne Abdou nee na yëkkati nuyoo bi. teg ko ci loxol Cheikh Abdou Lahad mi fekk si. ko ci loxol Serigne Abdou Lahad mi Serigne Abdou Khadir fekk si. mu jataayoo ak Serigne Fallilou. mu jataayoo nag ak Serigne Fallilou. jataayoo ak Serigne Souhaïbou. jataayoo ak Serigne Souhaïbou. xaw ma lu yàlla gërëmut. nee na xaw ma lu yàlla gërëmut de. waaye bii jataay bokku ci waaye jataay bii moom bokku ndax ñi fi daje. ndax ñi fi daje. ñi ci ëpp yëgoowun woon. ñi ci ëpp yëgoowun woon. te bokkuñu yitte. te bokkuñu it ay yitte. te dañoo dagg seen yitte. te dañoo dagg ñoom ñëpp seen i yitte. sawar ci lool ci dagg gañ ko dagg itam. sawar lool it ca dagg gañ dagg seen i yitte. ñëw fekk si jataay bu tedd bi. ñëw fekke si jataay bu tedd bi. alhamdulilahi rabbil alamin. mu ne alhamdulilahi rabbil joxoñ bii nga xam ne moom la sëriñ sii di wax ci nee na joxoñ bii nga xam ne moom la sëriñ sii di wax ci njëlbeen. mooy ñu dajale ñun ñun ñi seenu njaboot. nee na dajale leen ñoom ñi nga xam ne ñooy seenu njaboot. wan ñoom la leen seen wayjur ya wanoon. wan leen nag la leen seen wayjur ya wanoon. joxoñ la leen seen wayjur ya joxoñoon. joxoñ leen la leen seen wayjur ya joxoñoon. xam nañ ne suñu njëriñ rek la ñu nee na ñoom day gën na ñoo xam ne seen njariñ kepp ngeen leen bëggal. ndax nit bu la jiitoo. ndax nit bu la jiitoo. gis njariñ. gis njariñ. mel na lu ca dënniir lu. mel ne lu dënniir lu ca njariñ la. ba nga yàgg si ca. ba nga yàgg si ca. jël ko. jël ko. jariñoo ko. jariñoo ko. tam mënoon koo jariñoo. tam mënoon koo jariñoo. wan na leen la mën a lépp defal la nag. lim la a lépp defal na la ko. kon sëriñ Amsatu. kon sëriñ Amsatu. day ànd ak i bokkam. wala bu sëñ Abdoulaye ñëwee fekk fa ay bokkam. wala bu sëñ Abdoulaye ñëwee fekk fa ay bokkam. te loolu rek la sëriñ si di def. te loolu rek la sëñ si di def. kenn ku ne. kenn ku ne. ba kàddu gi ñëwee ci yow. ba kàddu gi ñëwee ci yow. la nga jàppoon lépp da nga koo bàyyi. la nga jàppoon lépp danga nga koo bàyyi. damaa jëlale sëriñ bi. damaa jëlale sëriñ bi. waaye moom jikkooy boppam rek. waaye moom jikkooy boppam rek. jar na wàcc ci lal ci wéradi jar na wàcc ci ab lal ci ak wéradi ñëw defal ko li mu bëgg ñëw defal ko li mu bëgg rawatina loo xam ne li mu bëgg rawatina nag loo xam ne li mu bëgg suñu njëriñul àdduna da cee nekk suñu njëriñul àdduna da cee nekk suñu njëriñul alaaxira nekk ci suñu njëriñul alaaxira nekk ci kon ameel nañ ko ngërëm akuk cant kon ameel nañ sëriñ Sidi ngërëm akuk cant lii lii ñëpp a ci war a jàngaat lu bari ñëpp a ci war a jàngaat lu bari delloo si waat ko delloo si waat ko ndax ba mu fi gëjee. ndax ba fi gëjee. du ma ne ba mu fi jógee. du ma wax ne ba mu fi jógee. ba fi gëjee. ba fi gëjee. yu bari yi xew ci la xewe ci la yu baree bari di xew ci la xewe ndax xéewal yi yaatu na. ndax xéewal yi yaatu na. bar bi bari na. barke bi bari na. ku toog fa nga toog. ku toog fa nga toog. la nga tolloon. la nga tolloon. sëriñ Touba dana la ko jox. Serigne Touba dana la ko jox. te du ko jaarale ci loxol kenn. te du ko jaarale ci loxol kenn. waaye nga nga toog ya ya yow kese. waaye nga toog meenam yow kese. fooguma nag gënal na ko. fooguma nag ne loolu moom gënal na sëñ Touba. ndax loolu rek waraloon. ndax loolu rek waraloon. njabootam gi di xëy. njabootam gi di xëy. di sonn. di sonn. di seetante. di seetante. di ganante di ganante. son bu rek. sëriñ son bu rek. moo xawoon a néew ay tànk ci yeneen kër yi. moo xawoon a néew ay tànk ci yeneen kër yi. waaye loolu lépp. waaye loolu lépp. liggéey ba nga xamante ne ñoom ñëpp da ci waroon a nekk liggéey ba nga xam ne da caa nekk te ñoom ñëpp ñu waroon caa ne tam nekkal leen ca tam nekkal leen ca te ak jotam mayu ko ko te ak jotam mayu ko ko moo tax ñu soppil ko ko ñëw di ko fekk si moo tax ñoom ñëpp ñu soppil ko ko ñëw di ko fekk si baaba kum fi fekk si baaba kum ci fekk si waxtu wu guddi lay doon waxtu wu guddi lay doon waaye du doon kendal goo xam ne nit ñi daan ci amul yoon waaye du doon kendal goo xam ne nit ñi daan ci amul yoon kon nag kenn ku ne ci ñoom kon nag kenn ku ne ci ñoom na la yàlla binde na la yàlla binde mooy sa melokaan ci Serigne Touba. mooy saw melokaan ci xaal ji ji tombé ba la fekkoon Serigne. noonee nga feeñ jamono xaal jooju rek la fekkoon Serigne Touba. Ah, kon nag nañ gën a laxasaayu ñun taalibe yi. kon ñun taalibe nañ gën a laxasaayu. jàpp ci sunu kilifa yii. jàpp ci sunu kilifa yii. lu dul ñoom. lu dul ñoom. bu ñuy woo. bu ñuy woo. nañ jàpp ne seytaane rek la ci noonu. nañ jàpp ne loolee ñuy woote du ñoom seytaane rek la. bu ñu laajee suñu doole. bu ñu laajee suñu doole. nañ ko joxe. nañ ko joxe. bu ñu laajee suñuy alal. bu ñu laajee suñuy alal. nañ ko joxe. nañ ko joxe. bu ñu laajee suñuy xam-xam. bu ñu laajee suñuy xam-xam. nañ ko joxe nañ ko joxe. ndax loolu rek mooy mbir mi. ndax loolu képp ay mbir mi. Ah, kon nag mbokk yi nga xam ne mooy Serigne Cheikhouna ñoom mbokk yi mu àndal yëpp. kon Serigne Cheikhouna ak mbokk yi mu àndal yëpp. maa ngi leen di sant ci turu Serigne Sidi. maa ngi leen di sant ci turu Serigne Sidi. bu ma ci Serigne Cheikhouna maram bu ma yëkkatee cant gi. yow Serigne Cheikhouna maram bu ma yëkkatee cant gi. teg ko ci sa loxo. teg ko ci sa loxo. muy cantuk Serigne Sidi ci mbokk yëpp. muy cantuk Serigne Sidi ci mbokk yëpp. mënu leen a fay. mënu leen a fay. ndax fu mu geesoo gis leen. ndax fu mu geesoo gis leen. lépp lu xew. lépp lu xew. ab jataayam. ab jataayam. yéen rek la yéen a koy wétali. yéen képp yéen a koy wettili ñëpp ngeen amal jàmm. ñëpp ngeen amal jàmm. waaye nag da leen a def noo xam ne. waaye da leen a def noo xam ne. Mm, mm, kenn defu leen ko. kenn defu leen ko. moo tax ngeen def ko nii ngeen ko def. moo tax ngeen def ko ngeen ko def. waaye loolu nag jikkoy boppam la. waaye nag loolu jikkoy boppam la. day am ñoo xam ne nag bu ñu ku ñu gën. day am nag ñoo xam ne ku ñu gën. du la tere baax. du la teree baax. ku ñu ëppale. ku ñu ëppale. du la tere am. du la tere am. Serigne Sidi nag ku baax la. Serigne Sidi nag moom ku baax la. Euh, ku laabir la. ku laabir la. te lii ñuy wax itam yàlla rek lañ koy seereel. te lii wax de yàlla képp lañ ko seereel. lum ñu wan rek la. lum ñu wan képp la. bu ñu ko wanutoon itam. bu ñu ko wanutoon itam. bu ñu ko dee wax. bu ñu ko dee wax. dana feeñ ci kaddu yi. dana feeñ ci kaddu yi. waaye yàlla ak Serigne Touba rek lañ koy seereel. waaye yàlla ak Serigne Touba lañ koy seereel. Euh, nañ ko ñun ñi ak njabootam. ñun ñii nga xam ne ñoo de ak njabootam. muy waa kër Serigne Modou. muy waa kër Serigne Modou. amu wutaluñ ko wenn dig suñ digganteeg moom wutaluñ ko wenn dig suñ digganteeg moom la ma ko waxoon barki démb rek la ma ko waxoon barki démb rek lépp loo nekk danañ ca nekk lépp loo nekk danañ ca nekk lépp foo ñu woo dañ la wuy si foo ñu woo dañ la wuy ndax xam nañ ni nga demee woon ak suñu kilifa ndax xam nañ ni nga demee woon ak ndax dala daa wettalikoo ndax dala daa wettalikoo te loolu xam nañ ko bu baax te loolu xam nañ ko bu baax yàlla na ko suñu borom yàggal yàlla ko suñu borom yàggal parce que li nga xam ne sëriñ Abdoulaye fàgg woon na ko fàggaloon na ko suñu kilifa itam nga xam ne sëriñ Abdou Lahad fàgguloon na ko suñu kilifa itam. ci barab bu tedd bii. ci barab bu tedd bii. ñu ngi ñaan sunu borom dugal ñi ci pàgguteef googu. ñu ngi ñaan sunu borom dugal ñi ci biir pàgguteef googu. te am nañ yaakaar ci ne am nañ ko itam. te it am nañ yaakaar ci ne am nañ ko. ndax ba ñu jógee ba nii ba nii ba nii nii ñu agsee fii. ndax ba ñu jógee ba ni ñu agsee fii. yëg-yëg boobu rek lañ am. yëg-yëg boobu rek lañ am. waaw xam ne yéen njabootug sëriñ bi. xam ne yéen njabootug sëriñ bi. taalibe yi seeni taalibe rek lañ. taalibe yi seeni taalibe rek lañ kenn moomu leen. kenn moomu leen. sëñ Touba rek ka leen am. sëñ Touba rek leen am. lu ci taalibe man. lu ci ab taalibe man. bul xool buntu ba buntu ba muy jaare bul xool bunt ba muy jaare defloo ko rek ngir sëñ Touba. defloo ko yow rek ngir sëñ Touba. boo ko defee def nga la nga war a def. boo ko defee kat def nga la nga war a def. bu ko de moom mi ngi ko wax bu ko defee. moom mi ngi ko wax bu ko defee. bu la ko defalee def na la mu war a def. bu la ko defalee def na la mu war a def. su ko defut su ko defut. war naa xool lam jaayanteeg sëriñ bi lu mu doon. war naa xool nag lam jaayanteeg sëñ Touba lu mu doon. ab taalibe itam. ab taalibe itam. day mel na jigéen ji sëy fi barab rek. day mel na jigéen ji sëy fi barab rek. kum neex fóotloo ko. kum neex fóotloo ko. kum neex tàngaloo ko kafe. kum neex tàngaloo ko kafe. wala nga toggaloo ko. wala nga toggaloo ko. bu lenn desee lu may eh, lal ba nag waaye dara desul lu lal ba nag borom kër ga rek borom kër ah, loolu nag mooy yéen yéen yéen ñu moom yow kon nag loolu mooy tegtale yéen yéen nu moom boole wuñu leen ak dara boole wuñu leen ak dara lu jamono yàqu-yàqu lu jamono yàqu-yàqu yéen rek yéen rek boole wuñ ci kenn boole wuñ ci kenn ku jàpp Sëriñ Tuubaa ku jàpp Sëriñ Tuubaa ba xëy bis boole koog leneen ba xëy bis boole koog leneen ñun duñu tee doon li ñu doon ñun ñun day yow moomee la nga doon du tee ñu doon dañ ko fekk mu mel ni mel. ndax dañ ko fekk mu mel ni mel. suñuy maam fekk mu mel ni mel. suñuy maam it fekk mu mel ni mu mel. ñu bàyyi seen lépp ñu bàyyi seen lépp ñëw ci moom ñëw ci moom mu defal leen lu leen seen i maam ñoom mënalut mu defal leen ñoom ñoo yéen lu leen seen maam mënalut kon nag ñun bu gor kon nag ñun bu ndees gor waree su ko booleeg dara duñ boole sëñ Tuubaa dara duñ ko boole euh, dara ba duñ ko tukki bu doon euh, ayib la bu doon ayib la ñu génn ko bañ naatiblu wuñ na lii ayib la ñu génn ko wan ñu ko bañ wóor nañu lii ayib la ci sëriñ bi ci wa ilaa ibadati rabbihi ndax wa maa xaybuha ilaa ibadati rabbihi bu jaamu bu jaamu yàlla te ayib sëñ tubaa daal bu fekkee ne jaamu yàlla mooy ayib jaamu yàlla mooy ayibam jaamu yàlla képp mooy ayibam kon nag bi yàlla sedd guyu barab bi yàlla sedd guyu yàlla fi yeneen dolli ko yàlla fi yeneen dolli ko tañ fekk ko tañ fekk ko tatal ko tatal ko eh, sëriñ Sidi maa ngi lay jéggalu bu baax sëriñ Sidi maa ngi lay jéggalu bu baax lii da eh, ndigal loo ma digal rek lii day ndigal loo ma digal waaye aw ma fi kàddu waaye aw ma fi kàddu damaa war di dégloo ñi sama bokk taalibe yi damaa war di dégloo rek nii sama bokk taalibe yi def jërë jëf jërë jëf xanaa day kaddu ñeene rek ak wax jot na sëkk doy na sami naa wa rek moo ci des mooy dégg ak topp waaye nag ñun ñi nga xam ne ay rakam lañ féete ko ndaw dañ dañoo war a gën a jàngat ci ay kaddu ci ni ñuy toppee suñuy kilifa ak pas-pas ak yitte ndax waxam jëpp génnut lool defe naa kilifa yii seen itte jëpp mooy li fi suñ maam yu baax yi bàyyi ak li ñu fi mag ñi bàyyi muy ndono seen itte jëpp mooy sàmm ko te jotaay bi loolu dong moo ko waral kon bu ngeen gisee suñ Cheikh Abdou muy wax soññee ba noppi sëriñ bi joxaat ma kàddu loolu rek la ci jublu mooy ñun ñi nga xam ne ay rakam lañ féete ko ndaw ñu gën a xam ni jublu bi mooy ñun ñu gën a am am yitte di ci seeni wax ak seeni jëf loolu dong mooy mooy wax ndax pas-pas lépp lu mës a taxaw ci yoon wi pas-pas moo ko taxawal sidina Aliyu la anhu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am tata ju ñuy wax xaybar suba ba ngoon ku ñëw mu jox leen digal nga ubbi ji waaye Seydina Aliou bi mu ñëwee ni ànd leen sama diggante bunt ñu àndu mu dóor benn yoon tata ji ubbeeku am saxaaba yi ñëw ne ko bi ma xalaata baaba xaybar bunt bi noo ko ubbee ñun ñetti téeméeri nit lañ dem ba léegi ñu ngi mënuñ ko ubbi loolu ëpp doole fop mu ni maa xalaat baaba xaybar bi quwatin jasadiya walakin bi quwatin ruhiya daan yéen ñetti téeméeri nit ngeen yéen a ma ëpp doole doole kese ubbeewuma ko bunt bi waaye pas-pas laa ubbee bunt bi kon pas-pas boobu rek ci lañ ñuy soññ lépp lu taxaw moo ko taxawal Seexul Xadim ñeent ñeenti gaalam yooyu nga xam ne benn bu ci nekk ñeenti ponkal ñu ko daan jàppoo mënuñ koo attan bi mu nekkee ci géej yëpp moo ko yanul boppam di ko teg ci kaw loolu pas-pas la kon xaal jooju ak pas-pas boobu moom kese ci lañ ñuy soññ gëmm gumba lu tax ci bëgg sëñ Tuubaa yam tàmbalee ci moom yam ci moom loolu moom amu fi kàddu waaye loolu dong laay jàngat ci sa kàddu yi sëñ ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu sëñ bi daa wax ne ginnaaw yooyu nag ginnaaw yàlla dogal na sëñ Abdou Lahad ak sëñ Abdou Khadir ñëpp sëñ Fall lañ daan jëlee ndigal te sëñ Falloo ngi nii toog kay sëñ am satu mën sa nangu nga ne sëñ Abdou Lahad waaw sëñ Saliou nangu nga ne waaw sëñ Siit nangu nga ne waaw ñu naan sëñ Fall nga naan sëñ Fallou sëñ Fallou bagara ngi nii maa ngi mel sëriñ bi mu wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu nee na mi ngi jéggalu kàddu yi nga xam ne mi ngi koy yëkkati nee na ñaanoon na ñu ne ndax yëkkati kàddu ko jar ci moom nee na bay na xaw sëy ni la nekk nee na diggante bi mu toog daa xat lool ci moom ndax nee na moom galas la war a doon fii mu toog sëñ siidee ngi nii moo a yëlif sëñ am sa yëlif ko nga nekk seen diggante rek nga nekk seen diggante rek kuy laaj laajal sëñ am am ku ñu man daal ku ñuy yónni dong la war a seq ñoom kon maa ngi dégg jéggulu ñu fi teew ñëpp di nuyu kilifa yi teew di nuyu suñu njabootu bopp gi nga xam ne toog nañ fi ak bokki taalibe yi fi teew yëpp tey am mbégte mu rëy ci xéewal gi nga xam ne fekk nañ ko tey muy xéewal goo xam ne ku ci yàlla boole rek war ngaa sant yàlla bu baax a baax nee mi ngi fàttaliku bis boo xam ne sëñ Abdou Lahad moo gane ji woon sëñ Abdou Khadir nee na moom booba moo ànd ak maamam ñu yem yenn ji Baxdaad ba nu añee ba noppi sëñ Abdou Khadir daa jël na ñaari dàmpi guro ne sëñ Abdou Lahad ne ko sëñ Abdou Khadir wax sëñ Abdou Lahad na ko fasal nañ ko ci ñoolu ña nga xam ne ñoo demoon fekk sëñ Tuubaa Sarsara na ko am nañ ko ci lool yi nee na gurëga moom mi mas na ko alhamdulilahi rabbil alamin sëñ Abdou waxoon na ne sëñ Abdou waxoon na ne sëñ Touba kat daa tudd Sarsara ña ko fekke rek. jamono yam fa nekkee rek. waaye képp koo xam ne am nga pas-pas boo xam ne. boo xamee ne mag ña jógoon jëm Sarsara. ñu woote waat feneen ngir ngir sëñ Touba. nga amaat pas-pas bu toll noonu. yàlla defaloon waa Sarsara. dana ko defal ñooñee. kon suñ jotaay bii ci la bokk. kon sikkuma sàkkane bis bu tey bii. taw feex ja nga xam ne ña demoon Sarsara moom la ñu am te mooy tàggoog bakkaar suñ jotaay bii ci la bokk nee na nañ ci am nag yàqin bu wér gëm ak gëm-gëm lu daa bokkul am na ñoo xam ne dañuy gëm-gëm waaye sëñ Tuubaa nag moom da koy wóolu du caa génn da nga koy gëm rek bàyyi da nga koy gëm ba noppi wóolu ndax nit lu mu wóoluwut du am jariñ ci moom nee na mi ngi sant bu baax ci turu kilifaam yi tew ndax ñoom. ñoo ko bëggal seen bopp. def mane seen jëmm ji. waaye ñun liñ am ci sëñ Tuba. dañ koo jaayoon bu yàgg jënd ko taalib ñun bokku ñoo ñoom dara. dañoo fekk suñ lépp ñu joxal ñu ko sëñ bi. jaayantuwaaleel nu. kon sëñ Salihu. yow sëñ bii yow sëñ Salihu yaa war a jël kàddu gi. ndax nee na foofu kon moo fi doon galas. ndax kat yow bu ñu bu ñu yónni yónni ma ma yónni la. nee na ñu ay taalibe rek. nee na lim fi dégg bokk yi wax ko léegi. dañuy ñaan jotaay yi rek. na bari lool. ndax li feeg mi ngi bari rek. seytaane moom li mu bëgg du ko am mukk te sëñ Tuubaa moom li mu bëgg dana ko am. ndax bekk yëpp ñoo fi bokk yendu. biñ fi yendoo. musoo bi yeeg. ndaw ko ndaa yeeg. ñeneen ci des lu luñ fi yendoo. xel li xel li ak xol li ak sàq <laughs> mi. loolu lañ fi yendoo nee na bi bii nga xam ne mooy sëñ Lamine Diop wax na fi léegi. nee na wax ji mu fi wax léegi da ko doon leeral. da ko waroon a leeral. waaye nee na da ko waxoon na ko. nee na da ngaa am koo amaloon dig yéen ñaar. mu yàgg lool. te nangu woo koo bàyyi mu. nee na bi nga ko waxee tey nag. mu ne ci kaw njëkk comme ni ko président wax. soxna si njëkk la tudd. ñu di ko ñaanal njëkk rek. ci kaw njëkk. nga defal ko njekk rek. kon defal nga ko njëkk alhamdulilah rabbil alamin. ñu ngi sant yàlla ci loolu bu lool nee na loolu képp jaroon na ñëw tubaab bi ngir loolu saafara sëñ am sa ñi ngi lay sant bu baax ci turu sëñ Sidi mii ni nga ko def ñëpp nga ko def mbat sa wayjur wa day dafa wax ak man moom mii sëñ Abi day wax ne moom sëñ Abdoul Ahad moom mooy sama idol li tax ñaar ñi mu wutu muy Cheikh Mamadou Moustapha ak sëñ Fallou seeni taaw ñoo ko mag ci saayir waaye bëgg ak sëñ Touba ak pas-pasam ci sëñ Touba moo ko àggale fi mu kon yoon wi sa sakkut raafut suñ jom képp moo ñu tey àgg fan jëm ñun ñii kat kenn ku ne war ngaa gëm ne dangaa war a jël kenn ci njabootu sëñ Tuubaa ko daal ne man daal sama baay bii laa bëgg a mel ne moom nee na mel na ñoom faat na waaye da nga jiitu ñu bari kon loolu la ñuy wax rek Cheikh Abdou dégg a li nga wax léegi ñoo ngi lay ñaanal baax rek di ñaanal sa rakk yi teew ak njaboot gépp ngeen gudd fan te wér ñaanal seen wayjur yi ñoom de duutuñu yokk koo kenn ku sëñ Tuubaa jur sa duutu jur wala mu jur sa ndey dootu juddooti yéen ak kon na ngeen ñu ñaanal ñu yàgg fi loolu sama seen i yoroon teg ko seen i amiin yàlla bu ci dara laal suuf di ñaanal sëñ Muntaxa mi nga xam ne mooy jëriñu sëñ Tuubaa yàlla yàggal ko fi àggale yéenam sëñ Tuubaa dama ànd ko rakkam yëpp ak jëwriñam yëpp di ñaanal sëriñ Sidi nga xam ne mooy borom jëwriñu borom barab bii di kër kilifa ak sëñ Amsatu di jëwriñu sëñ Muntaxa amit yàlla yàggal ko fi may ko wér ak njabootu sëñ Tuubaa yëpp boo xasee tudd sëñ Muntaxa tudd nga ñëpp ndax ñëpp a ci biir sëñ bi daal xolam sedd na guy lu xolub sëñ Siidi sedd tey nag suñ xola ko gën a sedd ndax nee na moom biñ koy woo ci bëccëg ñi ngi noot tisbaar waaye ma xam ne murit moom du doog ngànt du am ngànt ma ndax damaa xamagut fu sama aajee fajoo aajo daal mi ngi fajoo ci ñu ne defal nga def ñu ne la bàyyil nga bàyyi te àdduna sëpp bu yàlla faj aajo benn bis rek da koy faj ta xaw ma bis ba ndax moo ko xamoon damay xaar ba bis ba ñëw rek ma ñëw def ko moo tax nag dama koy làmb fépp la sëñ Fall waxoon nee na xam ngeen waajaa ñu ne ko déedéet ñu waaja daa gàtt ñuul njool sew rëy na fa tër rek kon ku la romb rek jàppal na waa jànga noonu sëñ bi daal ñëw nañ fii diggante Cheikh Abdoul Ahad ak sëñ Abdou Khadir sëñ Abdoul Ahad day bëtam ba lépp lu masaa gis yàlla faj lool Cheikh Abdou Khadir noppam ba lu sa masa dugg faj sëñ bi nun donga yaa ngi nii na sunu aajo faj ku fi jógee na tàggoog bakkaan na ku fi jógee na tàggoog bekkoon wéradi yi bari na jàngoro yi kaw ak yu suuf biir ak biti na yëpp tàggoog na xéwal yi na jàmm am ci réew na jàmm am Tuuba na yàlla guddal fani murid yëpp ak jullit yëpp def jàmm ci àdduna sëpp réew yooyu tàkk nga xam ne imaam yëpp nga jëlee fa xutba donte bu dee diine bu diine yëpp waaye doomu aadama ay dee rek doomu adama kenn waru koo ñaanal am sabar yàlla na yàlla def ci am ci réew yëpp def ci àdduna sépp kon ñëw nañ fii ci Touba Belel fii la sëñ Abdou Lahad demee àjjana fii la amee ngërëmul sëñ Touba kon sëñ bi ñu ngi lay ñaan sa sanc bi yàlla yàlla yàlla maqaat waaw moom yàgg fi lool te wér lool loo fi jaamu yàlla yàlla ko yàlla na sëñ bëgg yaa ko xam yàlla na ko suñu borom sëñ Sidi suñu xol seet na guy noppi sëñ son nañ ci loolee ba ci sëñ Abdou Khadim sëñ bi ko daa mel ni sëñ Fallou wax daa mel ni sëñ Fallou wax daa mel ni sëñ Fallou wax ñu ko jàpp yëpp fa saa ak baax saa maa ngi waaw maa ngi leen gën a dénkaat rek di gën a dénkaat ñi nga bokkal sëñ ngeen gën a góorgóorlu te gën a fonk seen bokk gën a jàppante ci yàlla man mi du fay maa wota xasda durali bil muntaxa waxutali maa wadduhu dawuttoxa وجعت لي ما لا يزال عجبا في أبد للصالحين النجبا مددت لي مدد من لا يخفى هل لي شيء جدت لي بالأخفى نفيت كل من خلاني فارا لما يسوءه دواما ذاك رب يا الله يا رحمن يا بصير خادر يا رحيم يا نسير نجيت من بيتعلق معك من الشياطين فسكر يسمع وجهت سكري إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأسمان كرمني في موضعي وبلدي مكرم بالأمن صفا خلدي أكرمني الرحمن إكراما كفى كلية الدراء وفيدي وكفى ناجيت ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان حميت حمدا يسوخ سرمدا لغيرنا إبليس سوخا أكمدا قلوب جملة العدا توجهت لغير دري والمنى لي وجهت قلوب جملة الذين أفلهوا ليتوجهت ورب المصلح إلى الذين ظلموني قبلوا نهت مدرتي كذاك الكبل عن انطفت مدرتي والبلوى بفضل مخن لي خاد الهلوى لو سكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات يذكره كل بالكتاب بلا معاداة ولا عتاب ناجيته تناجي التكريم ولم يزل بنافع كريم إليه وجهت هنا خطابا مع اليقين وفؤادي طابا نصرتني فإنك النصير ما وتاي بي إنك البصير سمد خد أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبله بفيضان رددت لي فيه الذي أحببت لي وجانب الأذى زببت أجبتني جواب من تعالى عن سنة وقتل انفعالا لوجهك الكريم أوصل فرجا للمؤمنين أول تحقق الرجاء مصليا مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرعه يا مما عن الأسى وتراه ما وتما علي مر من بلاء يا من جميع خدمي تخبرا نجم يا للمستوى بعد سرى مع سلام من عداهم الخلا يسر له به الذي تعسرا فكل ما يسرته تيسرا ما جاءت عبدك خديم عبدك مرتجيا الى المنى من هندك فاز الذين سهدوا بالخير وباء من لم يسعدوا بالضير أكرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيخ الذين تركوا العباد للنار من, من لم يتعبد طيب من أراد أن ينخذ ما أبرمه من ضيفه لم يدما جزاء من بار زسل عصيبك فكل من أبكاه سل كرسي بكى إن الذين كفروا وامتنوا من توبة رأوا جسا ما سنا بطونهم سكن على خارب والكل منهم من سديد سارب للمسلمين ولكل المسلمات نور الذي أذهب على الظلمات هم الذين في الجنان يخلدون وهم بما يسرهم مخلدون مناه محتوى بالاسلام والكل بالبصر ذا انخلاب رجاؤهم محقق وملك في أبد ما لا يراه ملك بناهم يغلى وليس ينسفل أما مبارس العلي فمنسفل محمد فاي ما أتخذ لي بالمنتخى وقلت لي ما وده ذو التخى وجعت لي ما لا يزال عجبا في أبد للصالحين النجبا مددت لي مدد من لا يخفى هل شيء جدت لي بالأخفاء نفيت كل من خلاني فارا لما يسوءه دواما ذاك رب يا الله يا رحمن يا بصير خادر يا رحيم يا نسير نجيت من بيتعلق معك من الشياطين فسكر يسمعك وجهت شكري إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأسمان كرمني في موضعي وبلدي مكرم بالأمن صفا خلدي أكرمني الرحمن إكراما كفى كلية الدراء وفيدي وكفى ناجيت ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان حمد حمدا يسوخ سرمدا لغيرنا إبليس سوخا أكمدا قلوب جملة العدا توجهت لغير دري والمنى لي وجهت قلوب جملة الذين أفلهوا ليتوجهت ورب المسله إلى الذين ظلموني خبلوا نحت مدرتي كذاك الكبل عن انطفت مدرتي والبلوى بفضل مخن لي خاد الهلوى لو سكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات يذكره كل بالكتاب بلا معاداة ولا عتاب ناجيته تناجي التكريم ولم يزل بنافع كريم إليه وجهت هنا خطابا مع اليقين وفؤادي طابا نصرتني فإنك النصير ما وتعبي إنك البصير سمد خط أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبله بفيضان رددت لي فيه الذي أحببتا لي وجالب الأذى زببتا أجبتني جواب من تعالى عن سنة وقتل انفعالا لوجهك الكريم أوصل فرجا للمؤمنين أول تحقق الرجاء مصليا مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرعه يا مما عن الأسى وترى موت ما علي مر من بلاء يا من جميع خدمي تقبلا نجوي على المستوى بعد سرى مع سلام من عداهم الخلا يسر لهم به الذي تعسرا فكل ما يسرته تيسرا ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا إلى المنى من هندك فاز الذين سهدوا بالخير وما من لم يسعدوا بالضير أكرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم شيخ الذين تركوا العباد لنار من لم يطع عباد طيب من أراد أن ينخذ ما أبرمه من ضيفه لم يدما جزاء من بار زسل عرش بكاء فكل من أبكاه سل كرسي بكاء إن الذين كفروا وامتنوا من توبة أو جسى ما صنع بطون سكن على خالب والكل منهم من سديد سارب للمسلمين ولكل المسلمات نار الذي أذهب أعلى الظلمات هم الذين في الجنان يخلدون وهم بما يسرهم مخلدون مناه محتوى بالأسلاب والكل بالبصر ذو انخلاب رجاؤهم محقق وملك في أبد ما لا يراه ملك بناهم يعلى وليس ينسفل أما مبارس العلي فمنسفل